waay fii ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi jërëjëf mbokki réew mi ak bitim réew ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar fu waay nekk rek si réew mi ak si bitim réew te ñuy suivre tey nag ñoo ngi fii Mbusoobe comme niñ ko tàmm di defee yaakaar naa ne bii mooy troisième année wala quatrième année ñu fiy ñëw bi biñ fi ñëwee ci cant gi la woon ñu am mbégte ak contentement daaw aussi tamit ñu ñëw fi ren aussi tamit ñu ñëwaat ci loolu mooy njeexaatu foo fore dem delloo fa sab loxo loolu la olof bi aussi tamit naan kóllëre la ñu am kóllëre gu yàgg ak ki nga xam ne mooy Sa Touba yaakaar naa ne ba partout dans le monde ñëpp xam ko tey jii nag yaakaar naa ne moom lañ dalal war waxtaan ak moom yaakaar naa ne sujet bi li ci ëpp solo mooy day jël li nga xamante bi ni mooy deuxième femme comme ni mu ko defee woon ci Bambey rek tey jii incha allahu rabbi gars yi di leen wax na leen tey la jeudi incha allah mais suba si vendredi bi képp koo xam ne bëgg naa ñëw rek mbusoo bi la foo laajte mbusoo bi rek incha allahu rabbi di nga ñëw suba la xew bi nga xamante bi nii moom lay xewal ñaareel bi nga xamante bi nii suñu borom moo ko jox sëñ bi dañ lay nuyu rek bàyyi la nga nuyoo mbokk internet di bu ko defee ñu jubli ci liggéey bi ginnaaw bi ñu la gëjee gis. waaw Mourou gannaaw bu sant yàlla julli ci yonent di gërëm suñu waajur ñu ngi santaat Serigne Saliou Mbacke bu baax baax. di dellu santaat Serigne Saliou di ñaan ci réew mi jàmm fu waay mën a nekk ci àdduna biir réew ak bitim réew ñëpp yàlla defal leen jàmm ci barke Seydina Mohamed di la nuyu di la ziar comme ni nga ko waxee rek yow sama diggante yow du tey démb la di nuyu sama xarit sama doomu nday këll gi ak euh, mboolem ko fi teew rek ak aadam yi nga xamante ni tey daanaka ci fajar ba léegi mi fi muy aada ak soxnaam maa ngi leen di ziar bu baax a baax sama sama sofër galaay di leen ñaanal jàmm ak sama xaritu bopp yëpp rek bàyyi mu kenn wax dëgg yàlla gaa yi moom aw ma seen fay daal vraiment dañ may taxawul ci lu bare bare bare di leen ñaanal jàmm rek barke Serigne Saliou comme ni nga ko waxee yàlla dogal na ci semaine bi la ñu génn lañ façon soxna yàlla dogal suba di màggal gi ñu fas yéene koo def benn rek mu fas yéene ñëw tey ci guddi gi suba ñu ganale ko rek ànd koog màggal gi daanaka dañuy màggal bés bi sax taxul ñuy kii waaye dañuy màggal euh, sëriñ bi. bëgg mu fekkee màggal bi moo tax ñu fas yéene mu ñëw rek ci kàttanu yàlla. macha allah am na solo euh, biñ la fi fekk yaakaar naa ne comme li ñu waxoon Ama Balde rek lañ lay wax kër gi baraag la nga yëkkati ko def ko etaas loolu nag yaakaar naa ne sag la parce que ni tamit boo nekkee ci famille dundu fekk say papa ñu galéré dundu lu metti comme ni ko papaay nit ñëpp defee yàlla suñu borom wërsëgal la ba nga mën a yëkkati sa kër première yaakaar naa ne loolu ab sag la ci doom joo xamante ni mi ngi cib koñ. waaw sant yàlla rek. ndax lu waaye def mu sotti yàlla neex defaluma yàlla lu tax mu defal ma lii samay waajur yaakaar naa ne tey jii bokk naa ci ñi nga xamante ni tey man maa ci gën a doon xale te samay waajur juruñu ma man kese tey kon su ma demee ba yàlla sama borom bi dimbale ma defal ma lii tey sag la santewaat naa ko yàlla bu baax a baax ndax aw ma mun mënu mën a wax loolu sant yàlla rek ndax am na ay kilifa am na ay mag am na lépp waaye yàlla dogal na mu jaarale lii samay loxo te lépp nag ci ay doomu aadama yoo xam ne damay jëflante ñoom seen xool di sedd rek lii yëpp ñoom la ci coobare suñu borom ndax ku xool kër gi tey nga xam ne lii du ay caaxaan waaw mais nag sant nañ ci yàlla bu baax baax lépp yàlla la vraiment. Mm. macha allah bi mu àggee tamit ba nga immigré ko tey famille bi tuxu si fi ana ban mbégte nga am parce que yaakaar naa ne képp ku nekk ci famille li ngay rêvé mooy tabax kër ba mu yegg fa famille bi première fanaan bi comme ni ma ko waxee woon Boy Niang première guddi gi nga fanaan sa kër lu yaasu wàcc la lan nga yëg. waaw rêve bi ma ci amoon mooy wax dëgg yàlla man lu ma defar defar sama kër te sama kër papa defaruma ko damay jàpp ne man defaruma dara ndax dama am ay mag am ay rak sama mag yor ay soxnaam sama rakk yor soxnaam man ma yor samay soxna ak lu mën a xew man dama jàpp ne dama leen war a teg ci condition yu baax ba pare man ma door a wuti yenn conditions yu ma war a tegu man rawatina rêve bi nga xam ne moom laa doon am sama waajur bi nga xam ne daf ma gërëm yàgg ma ñaanal te man ma jàpp ne defalaguma ko woon dara ci àdduna li ma ko war a mën a defal rek mooy fexe ba dugal ko ci biir kër te démb bi yàlla dogalee démb ci guddi gi ñoom ñu ñëw fanaan ci kër gi fii ñu toog mën ak yow fii la toog ak sama maam ak sama mag bu góor bi ñoom ñett ñëpp ñu àndandoo di sant bay jooy ba man dama mujj jóg isolé wu dem bàyyi leen fi parce que it mbégte mi nga xamante ni moom laa bëggoon moom laa doon rêvé sama àdduna rek mooy dund ba sama papa daagu ji kër xam ne kër gi man maa ko liggéeyal dugal ko ci ne ko sa néeg a ngi nii papa caabi kër gaa ngi nii loolu laa doon rêvé te Serigne Saliou defal na ma ko gannaaw yàlla ak yonent bi maa ngi ciy sant Serigne Saliou bu baax a baax baax. am na solo euh, fi ñuy jeexale ak yow. kenn ku ne xam na ne tamit sëñ bi ci benn la nekkoon sëñ bi daal mën naa ne yokkaat na askan bi nga xam ne comme ni ko yónnante bi digale ku man ñaar ñett ba ñeent fi mu ne ni daal ma juum suba moom soxna jaara mooy waaj waaw xam nga ñun ay ay jullit lañ ba pare bëgg doon ay taalibe Serigne Touba ndax it saa su ne rek ay taalibe lañuy bëgg di doon bëgguñu doon leneen te ku ne xam ne ne jullit ah ci li nga xamante ni mooy war ci moom ci wàllu soxna euh, nga xam ne moom la ci yàlla sama borom bi santaane mooy góor gu ko mën nga làq ñeenti soxna soo ko mënee te it ñaan nañ yàlla moom matale lépp bu soob yàlla yonent bi incha allah rabbi ci kàttanu yàlla bu ñu fi dégg bàyyee parce que itam jigéen ñi toll na fi foo xamante ni tey nag boo bëggee dégg-dëgg yàlla sàkku leen pour mbaam xuux yi yàlla da sàkk pour doomu aadama yi sàkk nañu itam pour ñu waaw ah, sàkk nañu pour sàkk na leen xam nga pour ñu jaamu ci yàlla ndax itam takk ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad du ñëpp ko mën yombul tey am na ñoo xam ne li ñuy yàq ci at yor na ñeenti jabar waaye jomi takk wala xelum takk balaa niwut ci ñoom waaye jabar du loo xamante ni da ngay xaar ba ne mën naa ko rek def ko boo tàmbalee yàlla sama borom bi moo ciy teg loxoom. man bi may njëkk sama aawa bi ma koy njëkk a dox di ko takk ba may njëkk dem di yóbbu fanweeri junni laa yoroon ci xaalis te yaakaar naa këll gi mi xam ne dara moom laa njëkk a yóbbu seen kër ne la nag yàlla ma booleeg moom waaye lii laa yor bàyyi ko ko bi ma ñëwee bañ jàppal ma bis avant bis bi maanaam la ma leen yónnee ñoom ñu calculer ko mënu ma la wax nu mu toll parce que fu ne la sama nit jógee yëkkati xaalis jox ma mais luñ ma jox rek ma nit ma joxaat leen ko ñu dem ba ñoom seen jëm boobu ñoo ne ma li ngay yónnee doy na man leen dañ ma koy jox rek te man li tax ñu jox ma ko mooy man maa yëgle ne damay def nangam samay nit yi kenn ku nekk dama ah sa waay sa xew dama ci war a jàpp di ma yónnee comme que xew waa tax ñu def ko ci nag moo tax ma defaat ko ci man ma santewaat ko yàlla baax a baax kon am na ci ñoo xamante ne mere nañ la nag loolu moom maa la koy yéege parce que Bambey ba am na ñoo ko yëgalut bii tamit am na ñoo ko yëgalul te am na ci ñoo xam ne dañuy mel ni muudu anta comme bu ñu amee yow yenn relation yi ngay am xew bokk ci réew mi il fallait que tamit nga yëgal leen ko. xam nga loolu itam li ma ci mën a wax rek mooy du du xew parce que du xew nu li may wax rek xañ na mbiri jigéen la rek ñoom ñu def seen yi waaye man Modou Anta li may bëgg wax chaque jour laay wax man bëgguma doon lu taalibe Serigne Saliou man ay xew ak yooyu yëpp dérangé wu ma. man ay xew ak yëpp nekkul sama bopp barke Serigne Touba Mbacké amul sama xarit yi may àndal sax démb lañ door a xam ne carrément soxna si day ñëw suba du loo xamante ni parce que mënuñu am lu gën a kawe màggalu Touba gi te man bëgguma favoriser lii nga xamante ni moom laa dëgmal muy gan gi war a ñëw di indi attroupement bañ fàtte màggal gi te man ma war a màggal man ndax ku tedd ki dafa woote ne kaay leen sant ma yàlla sama borom bi sant le googu mu woote pour ñu sant ko yàlla suñu borom bi nag ma fas yéene gat gi ñëw sant le ñu ko waaw jaar fas yéene gan gi ñëw sant ñu ko aran ah, jege sil ba laalal kii loolu mu tuddoon dëgg comme li ñuy wax rek hmm. jala ñëwal kaa tooni <laughs> xarjata waaw di santaat yàlla comme ni ñu ko waxee rek gis nga yaa sëriñ Touba Xaadimu Rasuul dafa woote ne nañ ko sant la yàlla suñu borom bi ci bis boobu ñu koy sant la yàlla suñu borom bi ñu may ma ci soxna suñuy wax soxna jaara bu maam mariama te soxna jaara bu buso moomu tey mooy waajuru ku tedd ki nga xam ne moo woote ñu sant la ko moo waral lépp kon tey bis bii doomam ji di woote ñu koy santale ma bëgg mu fekkee ko rek loolu la rek loolu dong lan ngay wax mbokku internet yi aussi tamit parce que kar kar ji même man mi sax dañ may woo naa may affaire yi fan la lan nga leen di wax di leen wax ne leen gars yi affaire yi tey la tey ñi may woo jotuñu ma yëpp nañ ma jégal hmm. te xam ne nit moo matut te wallahi lazim bi ma xëyee ci suuf ba léegi maa ngi ci gan ñi di jaaban téléphone bi sax pour ma jël ko yow yaakaar naa ñëw nga ba yegg si ci kër gi déggante wuñ téléphone. parce que waaw xam nga te it am na loo xam ne dama koy dund mu metti mooy tey bu la ñëpp soxlaandoo nit ñi xolo aadam yi. wallahi lazim ñëw na ba yegg si ci kër gi sama chauffeur bi la mujj woo ba yegg te ci fajar ba léegi mi ngi fi këll gi mi noonu xam nga gaa yi fën na la nit di wooyee des fois ma ñëw gis ay appel yoo xam ne sax. wallaay ma damay am kersa mais nag sant yàlla bu wér parce que ñoom comme li may wax rek li ma booleeg ñoom du ay ay làmbo sëriñ bi la parce que avant làmbu la ñu yàlla boole avant mbiru làmb la ñu yàlla boole kii kii dama dund ak moom du ne ci àdduna muy këll gi li mu xam ci man amul ku ko xam ci man parce que dañ doon bokk benn lal bu ñu doon fanaan seen kër ak ñoo Modou Lo ñoo jàkkaarloo dama doon jógee ka ñoo Modou Lo di dugg këram nekk ak moom këll gi mi tëdd na ma ak moom yaakaar naa lu ma deux ans yoo xamante ni dama doon bàyyi biir gàlle Moodu di ñëw di fanaan moom ñuy ànd fu ne di seexu lu ne kon tey sama nit la dama koy ñaanal yàlla rek li mu bëgg ci àddunaam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal kii doom ji mu njëkk am Serigne Saliou la ko tuddee kon xam nga ne am na ci loo xam ne waaw du hasard aadama mi gis nga ko moom it léppam waaw moom léppam Serigne bi la gis nga boo ko xoolee rek xam ne kenn du kenn du laajte doon. waaw kenn du laajte laajte boo xam kii fan la bokk moom léppam sëriñ bi la te barke sëriñ Touba ba mu ñëwee ba léegi wallaay la asim di jëfi taalibi rek la fi wane. day toog waxtaan ak yow xam nga nit ñi fekk ko ci kër gi mu jël temps kaf ak ñoom ree photo ak ñoom saafante ak ñoom continue di dund sëriñ Touba nag kon yàlla na ci làq ngërëmal sëriñ Touba. di ko ñaanal yàlla bu baax kooku mooy Ada Fass yaakaar naa ne aussi tamit ñun ñi nga xamante bi nii yàgg nañ koo xam avant muy bëri arène da ngay xam ne nitu kese la. waaw ah, man moom li may wax moom xam naa bu baax te moom si tamit xam na parce que avant muy dugg arène la ñu xamante woon ma ko doon wax ay ñooñam na leen profitoo leen mu teel a dugg arène parce que nii ma ko gisee ëllëgatu si biir man naa am dara ci làmb këll gi le grand champion vainqueur de Kaw Gourdin vainqueur de mu séeréer le grand champion da ngaa làqu nag ci loo ne sant Serigne Touba bu wér eh, mu doon ànd di ziar ñëpp di ziar waa Touba di ziar saa Touba mi nag moo ñu boole man ak moom du keneen yàlla moo ñu boole man nag moom ndax yaakaar naa ne su ma su ma juumalee sama premier gisante ak moom dafa euh, amoon combat fii nii Mbàkke ma ñëw fi mu bëre daan yàlla nag mooy def si lu nit ki lum lum mënul mooy def si nit ki loo xam ne lu ko neex la koy def lii nii du moom moo ko sàkkul boobam du moom moo ko créé du moom moo ko te lii lañ doon ñaan yàlla bi may ñëw fii yaakaar naa dal fii noo du tey maa moom dëmb la woon tey soog a ñëw di ko ñaanal yàlla rek lu moo xam li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal li ma koy li ma koy ñaax di ko wax loolu moom xam na ko moom xam naa di ko ñaanal yàlla na ko yàlla bàyyi ak soxnaam mi yàlla na ko yàlla bàyyi ak waajuram yi ak rakkam yi ak magam yi yàlla lafal ko cat may ko jàmm fu mu bëgg yegg yàlla na ko fa yàlla yeggal si barki Seydina Mohamed macha allah kooku mooy këll gi léegi nag yaakaar naa ne kii moom sëñ bi moom damaa yaakaar na daa ñëw pour nuwaaye ñu solam bii mu sol moom macha allah moom murit maa lay nuyu bu baax a baax di la siyaar tey nag dañ lay laaj rek duñ duñ xuus si làmb sa digganteeg sëñ bi parce que gis na ne wax dëgg yàlla fonk nga màggal gi chaque année da ngay ñëw nii nga koy defee sikóor yi nii nga koy def feneen ak feneen nii nga koy def ca cant ya tamit ca Ndakaaru maa lay nuyu bu baax a baax. mën naa ñu la siyaar di la fay di ni suñu sëriñ suñu jëwrin jëwrin sax laay wax suñu jëwrin ndaxte moom kuy defar amaana jëwrin nga te day defar waaw du làmb kon loolu léegi du làmb quoi waaw dañuy defar la waaw yoon lislaam waaw waxuma la nekk Baay Faal nekk dafa bàyyi dëgg ma dafa génn làmb ci ci tee di waxtaan ak ñoom di ñu giddee di wax ay xale lañ teewul day wax day gën a waxtaan ak ñoom xale xam xale chaque jour day nekk si heure ay juum saa moom ñun amuñu fayam barke Serigne Saliou amuñu fayam dañuy ne alhamdulilah quoi ndax de mënoon nañ nekk si laa mu jeexee ñu nekk si leneen déedéet bu jeexee dañuy gën dañuy gën a wax ne affaire lépp waaw jullite la daal waaw di ko jaajëfal bu baax a baax dinañ gis nañ liggéeyam gis nañ taxawaayam bu baax. Mhm. mais mais aada relation yi nga am ak say supporters relation yi nga am ak sa sëriñ nga xam dañ lay ñaanal lépp luñ xew la ñu gis sa teewaay quoi. waaw loolu noonu tey jii mooy amaana gi nga doomu aadama bis moom bis moom ak lu mu munti doon bis doomu aadama amul lu bisam. sama bis ñëpp dañuy bàyyi seen yitte ñëw kon sama doomu aadama bu mu doon ba amee bis damay bàyyi sama yitte dem ndaxte nit tamit bu la du la gën a gore quoi du la gën a gore nit bu la bu la lebal nga koy fay. lan ngay wax mondu làmb lan ngay wax ñi nga xam ne màggal si nan ñu dellu si jàmm aussi tamit. waa di ñaan ñëpp jàmm waaw yoonu jàmm rek mondu làmb yëpp ne sénégalais yëpp laay wax sax ñu màggal si ñëpp. waaw yoonu jàmm ak salaam. xanaa di nga ñaan pen bi jeex. waaw waaw waaw lu ñu fi ñaan suñu boroom nangul ñu ko si kàttan suñu borom incha allah. waaw ñoo gën a bëgg Mouranta. sëñ bi jaajëfal bu baax. ndaxte waaw tey jii wax moo baaxu rek lu may wax mën na journaliste yi yaa yow kese yaa ma xam. ndaxte dag ma topp mbapat. may daan ay champion di nëbbatu. yàgg daan ay ndaanaan di nëbbatu. waaw nga xam moom bu baax waaw. di la jaajëfal bu baax mu kooku mooy aada ñu koy jaajëfalaat bu baax yaakaar naa ne comme ni ma koy waxee rek sëñ bi ba mu ñëwee ci làmb yàggut ay moroomam la fekk ay magam la fekk Fass yàgg naa am champion mais révélation bu mel ni aada Fass ci année yu ñu génn yëpp mosul am Fass nañ ko jàppale ñu entouré ko encadré ko ngir li mu leen bëgg indil ëllëg roi des arènes mu indi leen ko parce que Fass depuis ñu dugg ci làmb ba tey jamonoy maam góor gi ba tey ñuy ay champion def lu nekk ci làmb loolu mooy seen rêve Gris Bordeaux di magam tante woon na ko perte ko contre Yékini 2009 moom aussi tamit mi ngi ci yoon bi roi des arènes la ko bëgg a andil ñi nga xam ne ñooy waa fas sëñ bi ma bàyyi la tamit nga tàggoo rek. waaw comme moom li mu wax rek tey aada ñoom dañoo toll foo xam ne ci làmb moom man damay wax ak moom sax ay champion yu mag yoo xamante ni tey ñoo ko jiitu ci làmb sax dama lay wax ak ñoom ne leen ngir yàlla de leen waxtaan ak aada comme ni may waxtaan moom. parce que ku la jiitu ci néegu lëndëm moo lay wax côté bi muy toogee te aada entreprise la gis nga nit da ngay toll foo xam ne du yow sa jëmb ci kese dafa am ñu boot sa ginnaaw li tax mën a aada entreprise la tey aada saa yu xewlee ñaata nit ñooy liggéey ci aada tey ñaata doomu aadama ñoom ñooy am dépasse ngir aada ngir lan tey ñi ngi jaay tisatu aada ñii ñi ngi dem wuti dem di jaayi crème ci bisu aada ñii di jaay café Touba di jariñu ngir lan saa yu jógee xale yi ñoo ko bëggal seen bopp toppal ko seen bopp kon moom tey mënuñu def lu di waxtaan ak moom di ko gën a gindi ci àdduna di ko xamal ne ko entreprise nga société nga ñi la yaakaar dañoo bëri faw nga di leen bàyyi xel parce que yow am na loo xam ne yaa ko moomoon sa bopp mais na loo xam ne fans yi ñoo ko moom am loo xam ne say kilifa ñoo ko moom am loo xamante ni tey say àndandoo say nit yi démb ñoo ko moom ci yow faaw nga di leen ko jox dëgg la dañ lay comprendre parce que li ko yàlla defal ci histoire làmb amul benn mbër boo xamante ni ba làmb sosoo ba léegi am na ko parce que fi mu toll ci làmb ak as bi mu am ak ni muy def arène nationale ni VIP di def mu koy def kenn mësu ko am ci àdduna ndax Balla Gaye 2 bi muy tollu fii amutoon lii Modou bi muy toll fii amu ko woon parce que boobu supporter yombutoon supporter léegi la yomb léegi ngay jóg booy bëgg la ñëpp jugandoo topp la bu njëkk danga daan loué ay oto yu du jeex pour nga am ay jàppale yu la dimbale sax nga ñëw stade sax problème lay doon léegi nag nit ñi làmb convaincre na leen ba bañ bëgg ko xale yi bëgg ko soppal ko boppam moom it nag dëgg yàlla nitu kese la te li ma gën a neex ci aada mooy day day reconnaître ay erreur am day reconnaître daa nangoo déglu conseil daa nangoo déglu koy wax ak moom parce que lu mu def boo ko waxee danaan la carrément loolu kat sama njuumte la maa ngi jégalu lii yaa ngi dégg te bu la bëggee wax dëgg it dala koy wax yaa ngi dégg li may wax rek mooy ñëpp rek ñu bokk ñaanal ko te di ko bàyyi xel di waxtaan ak moom te xam ne man man xooliwu ma sax jëmmam ji léegi man damay xool ñi koy yaakaar topp ci ginnaawam di jaruñu ngir jëmmam may ñaan yàlla yàlla nital ko aw yoonam ba fi mu bëgg a ci àdduna mu yegg fa moom comme li mu wax léegi rek gis nga Mourou Anta man dama dem ba dama am problème ak mbër yi problème bi ma am ak mbër yi mooy ñëpp ma bëgg man awma sens interdit ci mbër seq ak kóllëre ñëpp seq ak ñëpp lu rafet moom daf may woo téléphone di waxtaan ak man te sama diggante aada eh, ay làmb ak leneen lu dul làmb du ay xaalis du dara sëriñ bi la tey mun naa ne seq nañ loo xamante ni dañuy waxtaan ci loo xam ne combat sax du taxaw ñuy waxtaan ci mbiru àdduna ci lu koy jëmale kanam te man su ma sañoon sama rêve man yëpp mooy aada tey tabax immeuble dugal ci ay waajuram man loolu laa koy ñaanal yàlla parce tey mbër. loo am am succès loo am am am tur amoo kër amoo oto maam say famille souteniroo leen ci yenn teg leen ci conditions yu baax yi daanaka sa carrière am na lu des lii rafetal sa carrière ñu ne diw moo fi def lii te loolu laa koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ay kër yi kër yi kër yi kër ndax yàlla mën na ko wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla defal mu ànd ak soxnaam su baax nga xam ne moom it mun naa ne mag këll gi mii ñoo ko yar nekkoon ak moom inte diis Mariama muy nit ku baax tey mu ànd ak moom ñëw màggal si daral ma sama kër ak doomam yàlla na leen yàlla taxawu sàmm leen ak euh, mbooleem koo xamante ni rek nitu arafaas nga ñu ngi lay ñaan yàlla loo bëgg ci moom yàlla na la ko yàlla defal ci barke Serigne Saliou vraiment kontaan nañ ci moom trop parce que itam euh, lii dafa rëy dafa bàyyi itam yëpp ñëw dalal ma tey mun naa ne sax sama oto man sama oto yëndu fi ma nga Bambey mais otoom la ma jox tey sama course yëpp ba ma xëyee ba léegi xam nga kon xam nga vraiment mu nekk kër ga nekk ci doon nit ko am taalibe daal waaw kontaan naa daal ci moom trop sama gars yi nag journaliste si ak sama mbokk euh, yi nga xamante ni ñoom mbëri ndaw yeeg yëpp maa ngi leen jégalu parce que am na ñoo xam ne xañ na bu ñu gisee lii da leen di jaaxal lu tax waxuma leen ko mais nañ ma jéggal rek jamono ji moo xat gi tey munoo nit ñi tey ñoo xamante tey dañoo amoon ay dëkkuwaay amoon ay ay daluwaay tey nga jékki-jékki yàqal leen loolu ñeneen ñee duñ ko jisee neen dañuy jàpp ne rek dañoo bàyyi fi ñu daan dal ngir saa Touba te bugguma comme que yàlla dafa dogal rek dama ànd ak lépp ci màggal gi bugguma kenn di amel kenn àq wala may tooñ kenn ci bis bi nga xamante ni dañ ciy sant yàlla suñu borom bi maa ngi santaat yàlla bu baax a baax di jël yonent bi di la ñaanal yow itam yow mi nga xam ne waa li ma bëgg sama àdduna rek moo ko defal ndax dañoo bokk benn kër di dund lu lu rafet ñu dem tey sa soxna ak sama soxna gis nga ko benn lañ depuis ba mu fi ñëwee kenn xamul kañ la waaw ñëw ci dëkk bi di nekk tuubaa nekk fii ak sama soxna di defandoo ak moom lépp vraiment aw ma maa ngi koy ñaanal yàlla mata la ma doon rêvé ci moom yàlla defal na ma ko mooy dama ko doon ñaanal yàlla mu am doom ju góor ñu tuddee ko Serigne Saliou te yàlla defal na ko kon yàlla na dund te am ndey ak bàyyi Serigne Saliou moomu tey yàlla na dem ba lépp loo soxla sa àdduna yàlla na la defal lu la sa waajuru góor defalut ci barke Seydina Mohamed ah, mu dund ay téeméeri at barke Seexul Xaddim sama xol sedd na trop ci yéen di nuyu gaa yëpp nag du Modou Baye Fall Ibou laay vraiment aw ma seen fay daal gaa yi ñoon Assise kooku moom kenn la ci man Père Ndiouga waaw Pape Mbaye bàyyi ma kenn parce que ñëpp rek samay kilifa lañ di nuyu itam au passage Modou Lo le roi des arènes maa ngi koy ñaanal yàlla baax a baax vraiment xam naa baax a baax fi ma teg xam naa cër bi ma jox damay nekk ak moom ñuy toog di waxtaan ba 3 heures de matin 4 heures ay nit dañuy toog di ko xaar sax mais Modou day toog di wax ak man te li muy wax ak man lépp sama intérêt la lépp nag amul lu muy wax ak moom li muy wax ak man loo xam ne intérêt personnel la moo ci ne lépp sama intérêt lu rek la may wax. lu baax rek la may digal su su tey Modou man des fois yu bëree bëri sax su ma demee ba gis ci sama bopp sax moom danaa ma yow rus ci yow rus ma ci nangam ji rus ci dee ma bàyyi waale xel man parce que dama am fu ma la teg xamu loolu ku la koy wax ku ne rek desalatuloo dara rawatina lu ma xew xewle mu déplacé wu ñëw te tey bis bi dafa ma waxoon ne carrément day ñëw ma ne ko muuru li nga def Bambey rek doy na sëkk te comme que dañuy woote màggal. bu fa ñëw mukk di ma indi ay ay ay kii ay waaw bàyyi nii rek mu sedd ñu ngi koy sant bu baax di sant ñëpp Zarko moom mi ngi Maroc mais gis nga waaw fi mu toll nii addunaam yëpp fii la nekk xelam mépp mu ngi fii parce que moom mosut tardé màggal màggal gi passé ñoo ko defandoo sama kër fii ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu bëgg ci àddunaam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal Baay Faal la yàlla na ko yàlla defal ndam lu sedd guy ci li mu dëgmal nii waaw di nuyu sama sama xarit Ama mm. ñu ngi koy nuyu baax nit bu baax la Jamil nooru laa vraiment moom comme li may wax rek Ama Baldé day wax ci man lu rafet boo waxee bu ma wooyee ñuy déggan téléphone dana ma yow Serigne Saliou rek laa lay xoolee man nit koo mën a doon boo bëggee Serigne Saliou dama lay bëgg te sama àdduna ñii laa ci gën a bëgg moo ma ko wax ci làmmiñam ne ma maalaw seeraas laa gën a bëgg sama àdduna ak sëriñ Saliou ak sama waajur kooku loolu ku la ko wax ku ne rek moo tax maalaw man bu ma ko xoolee rek damay xam ne kii vraiment wallahi la asim diggante ak Ama de yàlla bu ci cat dugg parce que ñaar ñoo xam ne dem nañ ba tuddantey doom seen diggante rafet na te yàgg na kon yàlla na leen yàlla defal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal itam xalif général de Baye Fall Cheikh Modou Mbenda fii mooy këram nii ci ginnaaw ñoo bokk benn koñ ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla sama borom bi yàggal ko fi loolu te mu ànd ak yor barke Serigne Saliou di bi waaw daal moom ñu ngi koy ñaanal jàmm moom xam naa <laughs> coono yee ko jàpp waaye sonn koo nag. <laughs> macha allah mi ngi noonu El Hadj Sa Touba lan dalaloon tey fii ci Mbusoobe muy sanc këram tombeek muy période màggalu tuuba mu war fee wàcce suba tamit soxna jaara Bousso di ci woo monde de la bi yëpp di ci wow waa diaspora bi yëpp mbokk yi. gis nga ñi nga gis nii gars yi ñoom laa doon àndal ba dara du dara te ba léegi nii ñoom lay àndal. ñoom ñi ñëpp te bala nga ko mënoon xam nga jël leen nga xool koo ci jël kenn pour kenn mun na la wax baax man du ma changé ñoo ma doon ànd ak démb ak bërgi démb tey laa gën a mën a ànd ak ñoom bañ naa ko fañ daan toog di waxtaan ba dara du dara saa yu mu ñibbisee sama oto foofu laa koy gaaree jënd basan gu bees tàqalal ko fa ñuy toog di waxtaan bu ma fa nit fekkee sax ay reer koy jàpp parce que dañuy yaakaar ne ay nit sax dañuy ñëw na ma yow fii du sa place mais te ñii sama ay gor lañ te dañoo yàgg ak man te dañu ma yéene lu baax gis nga sama kër gi xaaj bi ñoom ñëpp ay ouvrier lañ kenn ku ne da ngaa bàyyi liggéey yi nga doon liggéey ñëw song ko wallahi lazim di leen ñaanal jàmm bu baax a baax muy ñoon Omar Diagne ñi ñoon Ablaye Diallo sëñ bas jenn kee surtout Cheikh Issa jenn la mais gis nga ko tout le temps mi ngi ci ñun di nekk ak ñun def lépp kii sama jarbaal la sama taawu pap moo ko jur Aziz mooy sama taawu pap bi mu gënoon bëgg jënd àdduna mooy waajuram tey moo mu taxal ma boppam ci man lay defee lépp ñu ko ñaanal yàlla bu baax bu baax gars yi daal awma seen fay ñoon Matar Fall Galas Diagne Modou gay moom mu ngi ci yoonu Bambey yu moo jëli ji soxna si gis nga beneen bi topp mooy man li gën jafe ci àdduna sama aaw papa moo jëli ji nii sama ñaareel <laughs> est-ce que dégg moo jëli ji nii fi mu toll nii maam jaaramee tey eh, kon loolu rafet na sant nañ yàlla bu baax julli ci yonent bi di la sant macha allah mbokk yi mi ngi noonu di leen jox di daje rek ba ëllëg incha allah jërëjëf ay waay ah, original neexal pot te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi